waaw li ñu war a leeral mooy institut Pasteur ci wàllu test yi amul dara loo xam ne lii daf koy def loo xam ne lii daf ci am bénéfice lépp lu ñu def amul benn sénégalais bu la ni institut Pasteur fayu na ko dañu ni koppar bi dafa bare ñun li nu mën a wax ci lu leer mooy institut Pasteur bii mbas bi doore

mu di sénégalais amul kenn ku ne mën a jël kopparam léegi nag comme mbirum test yi dafa laaj koom-koom li nu gouvernement jox dañu si boole ñun suñu alalu bopp parce que Institut Pasteur loolee liggéeyam bu amee xaalis feneen sart yi ñu ko tëggee dafa war a jël xaalis boobu bu dee bénéfice la mu dugal ko si loo xam ne njëriñu ñëpp la waaye warul di jël xaalis bénéfice di ko denc sart bi nu tëggee sunu société bi noonu la mel donc ñu si dugal suñu koom si wàllu Covid bi ñetteel ba itam am na ay ni ñoo xam ne mu bëgg dimbale pour test yi Sénégal pour Covid bi dem fi jóge ñooñu oti bu fu nu dégg doon ne ah est-ce que mën ngeen nu euh, jàppale ci wàllu test yi parce que loolu koom-koom la waaw li nu mën a wax mooy euh, ci wàllu woowu Institut Pasteur bu test yi demee ba jeex amul dërëm buy dugg si poosam lépp lu ñuy wax si wàllu test bi mooy moom mu bañ mu mu xaalis bi mu bañ si am benn bénéfice mais lépp dem ci askan wi pour ñu mën a justement jëlee fi mbas